Ousmane Sonko moom ba njiitu réew mi wootee fan yële ñëpp ñi ne ci Sénégal te yaakaar ni war na leen mën tàllal loxo ci xeex coronavirus gi moom bokkoon na ci ñu wuyu ci ca palais présidentiel tey ji xeex bi gouvernement bi sumb ci euh, coronavirus gi ci wàllu wér-gu-yaram gi ak matuwaay yi ñu jël yéen waa PASTEF euh, nu ngeen koy euh, xayma njëkk bala noo sori ci waxtaan wi. waaw jërëjëf sëñ Babacar di nuyu tamit El Hadj Ndiogou Diène di nuyu mboolem auditeur ak auditrice Euh, damay tàmbali rek samay kàddu di mastawu sénégalais yëpp rawatina euh, ñi nga xamante ne ni ñooy gën a yëg coono bi ñi nga xam ne xëy na li ñu naan ay journalier lañu wala ay jaaykat lañu wala hôtelier wala ñi nekk ci secteur yëpp nga xamante ne ni tey yëf yi laal na leen bu baax waaye tamit di mastaw bu baax a baax ñi ci diaspora bi euh, coono yi ñu nekk di dundee di jaajëfal bu baax a baax personnel de santé bi nga xam ne tey waneeti nañ seen xarañte euh, ci question bi nga ma laaj nag euh, comme ni ko xëy na ñu bëri defee bi euh, président Macky Sall woote suñu leader di président Ousmane Sonko bokk na ci ñi nga xam ne wuy ji woon nañ waaye wuy ji boo xamante ne nii bi ñu demee laaj nañ ko ay laaj wax ko suñu xalaat bi ñu génnee tamit wax nañ ak sénégalais yi gis-gis biñ ci am Eh, tey ñi ngi nekk di xool par rapport ak lépp loo xam ne waxoon nañ ko fa ak ñi yëf yi di demee ndax méngoo na am donc ñuy wax ne rek euh, dañoo nekk di dund loo xamante ne nii euh, su jotee amul benn sénégale boo xamante ne nii di nga toog sa roq ne man yëf yi concerné wu ma donc ñëpp la concerné maanaam daf nekk loo xamante ne nii di naan xëy na l'union nationale la soxla waaye nag union nationale boobu noonu day ànd ak wax dëgg wax sa xalaat waaye tamit yaakaar ne lii mooy li gën bu ñu ko defee te su ngeen xoolee laata président Macky Sall di woote président Ousmane ko defoon na benn sortie doon wax ni yi ñu xalaatagum ne cas yu de force majeure yu mel nii wala épidémie wala pandémie su jotee nii lañu war a doxalee mooy président de la république dafa war a woo toutes les forces vives de la nation ànd ak ay personnel de santé ñu xarañ ak ay conseillers dem seeti kilifa diine yi waxtaan ak ñoom ci mbir mi ba nga xam ne ñoom dañ ciy am toutes les informations nécessaires waaye tamit mu def ko ak les politiques ak la société civile bref ak les euh, forces euh, vives de la nation su ko defee su boobaa élan de solidarité bi day gën a yaatu et ñëpp dañuy sentir ne associé na leen. Mm, mais ni mbir yi doxee boobu ba léegi ni nguur gi di doxalee ak euh, président Macky Sall jiitu ci ndax euh, méngoo na ak ni war euh, pour yéen. waaw am na ci yu bëree bëree bëri wax dëgg yàlla ñun rafetlu nañu ko bi ñu koy wax président Ousmane Sonko ñu ko wax. ndax bu yàlla dogalee mu taxawoon ne ah lii bu amee président Sonko président Macky dafa war a Euh, ak gouvernement am dañu war a tëj frontières yi au moins ak pays yi nga xamante ne nii am nañu foofu épidémie bi mi France mi Italie mi Espagne yàlla dogal tamit ñu tëj ko waaye euh, boo xom boo xoolee tamit joxe woon nañu yeneen ne ci wàllum koom-koom bi ak nu ñu koy wutee ak nu ñu fas yéenaa jàppale askan wi te ba mu fa demee tamit waxtaan naak moom ci loolu am na ci nag yoo xamante ne nii euh, doxal nañ ko ñu koy euh, rafetlu askan wi moom lépp loo leen mën di jàppale lu muy tuuti tuuti lu ñu rafetlu lay doon donte dañuy jàpp na xëy na mën na gën a ñoŋ a ah, di rafetlu tamit wax dëgg yàlla gestion bi nga xamante ne ni si ci wàllu santé bi personnel santé bi ñu ngi koy gérer crise bi malaad yi ak yu mel wax dëgg yàlla euh, day day dafa nekk loo xamante ne ni ñoom duñu jot ci di leen jaajëfal waaye tamit loolu su yombee ci ñoom dafa fekk ne askanu Sénégal dañoo wone ak mat ci wàllu yu bëri nangoo soppi seen doxalin nangoo euh, euh, adhéré ci euh, yi nga mesures yi nga xamante ne ni les professionnels de la santé joxe nañu ko te loolu mooy lii mën a tax ñu faagaagal jàngoro ji jëlee ko fi waaye tamit am na ay gàkk-gàkk yoo xamante ne ni wala sax du mën a ay gàkk-gàkk waaye alerté woon nañ alerte woon nañ ci yëf yi alerte bi nag président Macky euh, président Ousmane Sonko wax na crainte yi ñu amoon ñun waa Pastef Macky Sall bi mu demee wax na ko ko wax ko xalaatam bi mu génnee tamit wax na ko sénégalais yi mooy lan yu mel nii bu amee xëy na li wolof naan ñi gàmm ak ñi raas dem bokkul dina am tout le temps ay yëf yu ciy rax moo taxoon mu teeloon a wax président Macky Sall ne ko dañuy soxla am un plan détaillé de l'origine des fonds mais surtout un plan détaillé des dépenses. ci wolof ak waaw maanaam dañuy am euh, maanaam koppar yi nañu koy dajalee dañuy soxla mu mu am euh, cellaange leer waaye tamit nañu ko fas yéene jëfandikoo dañu war a wan sénégalais yi euh, plan boo xamante ne nii ah dinañ xam ne lii kat dërëm bu ci nekk fii lay dugg ndax soo xoolee bi ñuy dajale koppar yi. sénégalais yu bëree bëree ci joxe seen xaalis ñii dem jox directement ministre de la santé ñii jox ay autorité locale ñii sax jënd ñoom séddaleel seen bopp donc loolu su amee hmm. day laaj gestion bi mu nekk benn gestion bu transparente ndax nag li tax mooy dafa am yu fi jot a jaar ay scandale sur scandale scandale sur scandale ngeen gis ni rapport yi OFNAC IGE euh, Cour des comptes ñoom ñëpp dañoo wane dañoo wane ay scandale yoo xam ne ba fii France daal di tëddal te loolu su amee mooy garde fu amul mooy lu ma mën di def tamit dara duma ci fekk moo tax ñuy jàpp ne yu mel nii su amee lenn rek moo mën a tax xel yi dal ba nga xam ne kenn du am dara lu muy jot ñëpp cee jàpp mooy yëf yi leer de A à Z. ah président Macky Sall nag waxoon na Ousmane euh, président Ousmane Sonko que feek fan yi néew ministre wala waxtu yi néew ministre yi dinañ génne plan bi. ba léegi nag gisaguñ dara li ñuy jot a gisagum mooy yëf yi dafa commencé rek coow li jib ñii naan scandale ci marché yi ñii naan scandale ci transport bi ñii naan euh, wàllu cellange ak même transport bi ak yu ni mel ñëpp a ngi laaj yëf yi leer loolu nag munoon na ñàkk ndax fi mu ne nii xëy na ku naroon a joxe sax dina teyaat xaalisam ne man lii kat ah xaw ma fan la. ceeb bi ñu euh, ceeb bi ñu ceeb bi ñu jëndee ci jenn waay joo xam ni. mi ngi fii ci Ndakaaru moom daanaka dix huit milliards francs CFA fay nañ ko ko ndax ñaari société am lañ jox wàllu ceeb bi ñu ngi wax ni ñoom lépp ci yoon la jaar muy kilifa yi di waa ji gañe ceeb bi euh, yéen nu ngeen gisee loola. waa xam nga loolu yëpp rek day dellu ci euh, ci slide li ñu nga xam ne waxoon nañ ko ne yëf yi dafa war a leer waaye tamit li taxoon voté wuñu loi d'habilitation bi dafa am solo parce que tey. xëy na assemblée nationale mënoon na jouer rôle boobu wala sax loi d'habilitation bi bu leeroon nañ ak plan beeg yëpp leer suñu xel dina dal ne ah Macky Sall kat li muy doyee loi d'habilitation bi c'est pour plus d'efficacité plus d'efficience maanaam yëf yi gën a gaaw gën a gën a wóor gën a ñoŋ mais gisuñu loolu gisuñu ko ci doxalin gisuñu ko ci euh, euh, euh, mutiiru loi boobu noonu maanaam fi ñu ko doxee donc loolu su amee nag ñuy xëy di dégg ñu ne ceeb bi jox nañ ko ay société kenn xamul ci yan anam gis nañ société yoo xamante ne nii ñoo bokk tur ministère bi nee na ñaari sociétés yi bokkuñ ci leen moom borom sociétés yi génn na nañ moom moom moom ñaar yëpp mais benn bi commencé na 2016 benn bi commencé na euh, septembre 2019 maanaam boobu am na juróom-ñett boo boolee ñoom ñaar ku ci nekk li la jox neuf milliards e quelque ak huit milliards et quelque waa ji laal na presque dix-huit milliards loolu nag du lu ñu bett ndax yàgg na fee am maanaam ci ci ci ci mbirum euh, contrat yeeg lu xóor yeeg yooyu ci anam yëpp nag dañuy wax président Macky Sall mu gaawtu leeral yëf yi jël lépp loo xamante ne nii mbirum koppar bi la ak ni koy doxalee teg ko ci comité boo xamante ne ni li ñuy def yëpp dafa leer et que euh, euh, ministre Mansour Faye na bu mu gérer lu dul opérationnel bi waaye balaa ñu ñëw ci loolu sax ñun dafa am yu bëri yoo xam ne dafa lënt suñu xel ndax ñoom xëy na ci un million de sénégalais la ñuy visé waaye un million de sénégalais yooyu dañoo jël base de données xëy na li nga xam ne ci la ñuy basé woo pour euh, bourse sociale yi ni RNU bi ñu gis ñu am fa ñoom cinq cent quatre vingt huit mille un million de ménage laa doon wax donc cinq cent quatre vingt huit mille quarante cinq ménages am nañ ko foofu soit pratiquement trente pour cent des ménages du Sénégal waaye ñu ni comme dañoo soxla un million de ménage donc am na yeneen quatre cent onze mille neuf cent cinquante cinq ménages yoo xam ne par ciblage la te soo xoolee ci communiqué ministère bi day wax ne yooyu maanaam euh, danañ danañ xool naka lañ leen di tànnee maanaam commencé nañ distribuer affaire yi te waxaguñu sax quatre cent onze mille neuf cent cinquante ménage yooyu ci yan anam lañ leen di jëlee est-ce que du am ay doublons est-ce que du am yaama neex. dañ doon wax nee day am ay comité ay comités locaux départementaux euh, ba ci quartier yi sax ñooñu ñoom ñooy xool ñi nga xam te ne ñooy néew di doole yi daal di koy remonté su defee ñooñu la ñuy daal di tànn. ana base ba ana base de donné ba kenn xamul ci yan anam la kenn xamul nen lan tànn kenn xamul ndax am nañ quatre cent onze mille ménages am bala nga naan naam ne fa loolu moom mooy problème bi nga xamante ne nii euh, euh, kenn kenn kenn mënu koo kenn mënu koo naatable. mais ci ci ci marché yi tamit soo xoolee ñoom ci yan anam la ñuy joxee sénégalais yi bourse sociale du par transfert d'argent ndax pour éviter loo xoor yooyu yëpp gënul woon xëy na yanu maanaa ñu ne ku ci nekk li la fas naa jox kat nan la ko jox par transfert d'argent lëkkaloog société yi fiy def transfert d'argent nga xam ne xam na leen ak post bi nga xam ne ñoo ko moom fexe ba ñëpp jot ci ndax xam nga lu tax am na koo xamante ne nii ba mu bàyyee ba pare denc na lu mu dundee at wala juróom benn weer waaye kat ordonnance ya mu am munu koo fay am koo xamante ne nii moom am na xëy na lu mu dundee ndax benn mbokkam bu nekk Italie yónnee na ko waaye euh, luyaas mu ngi koy am nay arrière loyer donc xëy na loolu moo doon gën a euh, yomb ak efficient ci état bi waaye moo doon gën a jàppandal ki ki nga xam ne moom moo yeyoo loolu ndax soo xoolee li ñu wax ne daanaka danga ko joxe boo ko calculer presque soriwul euh, soixante mille francs yaakaar naa boo leen ko yónnee woon xëy na dina éviter yi ñuy wax marché ceeb bi dara leeru ci waaye tamit transport bi. Ah, transport boobu transport ginnaaw yow sa xam-xam daa màcc ci wàllu transport logistique euh, xayma giñ ci def daanaka ñaari milliards ngir transporte yëf yi ci biir Sénégal euh, lu yenu maanaa la ci sa xam-xam am xam nga euh, transport moom dafa am ay coût logistique moom dafa dafa cher li ñu wax ci li ñu wax ci euh, nu ñu koy tuddeeti li ñu wax ci tonu ceeb yi ñu bëgg a yóbbu yëpp dépassé mu dépassé milliard mën na xel mën na ko nangu waaye problème bi ci am mooy fa ñuy wax ne dépassé na milliard ak dépassé wul milliard dafa am transporteur yi taxaw na ñoom pare nañ pour participer ci élan de solidarité bi joxe seen ay oto gratuitement bu boobaa état carburant rek lay jënd waa léegi man dinañ may may ma bàyyi ko fa ne nay de damay fay problème bi foofu lañ njëkk amee te xam nañ transporteur yi nekk Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo fi am camion yu approprié pour def transport boobu xam nañu ni ñu toll xam nañ seen ay élan parce que li ci ëpp sax ay doomi daara lañ ñi ci ay sénégalais la ñu nekk fii tabax seen batiment seen seen seen seen entreprise jugee ci zéro ba yegg tey foo xam ne am na ñu ci am quarante camions ñii cinquante ñii lu ko ëpp te ñooñu ñëpp bëgg nañ seen réew bëgg boo xamante ne nii bu leen état sollicité avant sax mu leen sollicité ñoom taxaw nañ ne mën nañ ci jàpp donc ñooñu loolu tax joxuñ leen yëfi ñu séddale ko bu séddale bi am donte man li may wax mooy premier choix bi c'était xëy na jox nit ñi euh, xaalis moo doon gën a noppal ñëpp waaye comme fi ñu nii nee nañ dañuy séddale waaye nañ ko jaaral ci anam yu wóor. Mhm. léegi nag ci yan anam lañ joxee marché boobu noonu. loolu tamit beneen problème la mooy jox nañ ko koo xamante ne nii euh, règlement assemblée nationale sax da ko tënk que ni xam nga ne kooku warul woon a am marché bi waaye ñii nee nañu homme d'affaires la bu jege nguur gi bu am doole fii bu am doole fii xëy na sax ku déglu sa sa sa chronique gu démb. mën naa ne tontu ba leer na mënuma ma faa waxaat lu ëpp li nga fa wax waaye dafay am solo ñu wax sénégalais yi que ni nañ xaar ne lii ñëw mën na leen a gën a yéem mën na gën a doy waar. Mhm. ndax kat ñii dañ ñu ko tàmmal. Mhm. ci wàllu leeraange président sax yaa ngi koy junj waxoon na daañu taxawal benn comité national pilotage ngir nag muy saytu ak yorin ni wàllum koppar yi di force Covid 19 euh, force Covid 19 bi mais gis nañu. ba léegi ni dara taxawgul waxoon na sax assemblée dina ci nekk muy opposition bi muy nguur gi waaye tamit euh, société civile ba léegi daal mbir mi taxawagul. waaw ba léegi de dara taxawagul waaye koppar yi moom taxaw na moom bañ commencé koo séddale bañ commencé joxe seen ay marché mooy li ma wax rek gis nga ñii euh, wolof daf ne kunda bin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw ñii dañoo tàmmal loo xamante ne nii yàlla ñun nag comme tout sénégalais comme tout waaye waxoon nañ ne xëy na ci période bii nga xam ne ñu ñi dund ak deelan tal xanaa nag dinañ dinañ denc seen jëfin yooyu noonu te benn au moins une fois ci seen nguur ñu doxal yëf yi mu leer moo tax dañ doon am njort bu rafet waaye nag dara duñu ci bett ndax yow ba nga waxee ne da ngay taxawal loolu ak ci anam yi ñu koy defee déjà nga waxoon ne ay waxtu kañ la recevoir oon président Sonko ne ko fekki waxtu plan détaillé bi dina génn mais anam ana comité bi pourtant xaalis bi dee ngi circulé ñu naan jox nañ kii nangam jox nañ kii marché bi ak seen ay chiffres yu bokkul saa yu ñu xëyee jox ñu beneen chiffre bees te loolu xam ngeen ne tàmmal nañ ñu ko mais booy jox sax marché waaw nga jox ko sax transporteur boo xamante ne nii wax dëgg yàlla am na matériel bu adapté ak li ñu war a transporter mais camion benn du pour transporter ay saak mais pour transporter vrac la vrac nag mooy maanaam euh, clinker bi mooy suuf si mooy gravats yi wala mbalit mi ak lu mu mën di doon. pour loolu est-ce que camion yu adapté ci loola euh, bëri na ci réew mi. Euh? daf bëri na fi même ba ndax ki ñuy wax ñu ngi naan al treize la ci am ak kii xam nga amu ci sens waaye tey am nañ transporteur yoo xam ne boo ci boolee ñaar rek am nañ sens te ñoom ñëpp ay plateau lañ yore ndax lu mel ni ay ceeb ak yooyu. soo ko en grande quantité da utiliser ay camion plateau. léegi nag bu lépp bu bu lépp weesoo euh, yéen opposition bi yéen yéen ay bi de l'observateur tey sax mi ngi koy junju yéen kenn déggu leen ci joxem xaalis gi ngir jàppale nguur gi mu xeex coronavirus gi yéen waa Pastef fan yële ñu doon wax ni bëgg ngeen ay milliards ngir politique euh, waajal seen bopp xanaa bu jàngoro ji teewee ak ni mel ci àddina ak ni mu duggee ci réew mi sax ngeen def dara waaye defu leen dara. yéen a féetewoo wax ji rek daal. sëñ Babacar eh, eh, kenn ku bokk ci yéen woo na ma keroog ma wax ko li ñu def yëpp te xam naa ne xam nga lu ñu def yow. mais dama la bëgg a wax ne tey xaw ma ko lu ngeen la ko wax dama la bëgg a xamal ni bu ñu deful woon sax kenn sañu ñu wax dara ndax xam nga lu tax ñu dañoo nekk parti politique nekk parti d'opposition sénégalais yi fol nguur gi wóolu leen. ñoom ñoo am entière responsabilité gérer crise bi loolu dama bëgg mu leer. mais fii nag askan wi mooy taxaw fii du parti du dara askan wi mooy taxaw état Sénégal mooy taxaw. falaa jëm waaye nag comme yëf yi. amu leen ci Pastef de. xel xel xalaatu si xel xalaat am am ci Pastef weetuwul kam moo xalaatoon ne euh, président Sonko dina jóg sol dàllam dem pale ñëpp gëmuñu ko woon ba ci bés bi mais situation bee ko laaj waaye avant loolu bi yëf amee yan ban parti ngeen gis ay militants am. ñu nekk ci garage yi ak ci marché yi fépp ci Sénégal di sensibiliser di joxe ay ay ay ay ay ay produits euh, d'hygiène Pastef ba am sax ñu ñu ci xalaat naan ñu yéen a ngi politiquer mbir mi Sénégal nag foog nga xam lu ñu bëgg ñun ñu woo suñu ay militants ne ah ñun kat Pastef doxee na amuñu ay koppar yu ñuy pasar pasare waaye am nañ ay militants yoo xam ne seen niveau d'engagement seen niveau de patriotisme yegg na foo xamante ne nii suñ leen waxee. def leen lii ñu def ko gis ngeen fii don de sang ci année bi yëpp on a fekk des dons de sang partout nettoyage partout lépp li acte de citoyenneté Pastef mu ngi ci tey nag bi li amee dañoo commencé dem partout di def ay sensibilisation di ànd ak ay médecins en plus di joxe ay ay ay ay ay produits et ba ñu demee ba ne invité interdire nañ lépp loo xamante ne nii mooy rassemblement contact ñu ne leen léegi nag changé leen seen format de participation. collecté leen seen ay dons collecté leen seen ay koppar waaye dinañ ko jox autorité locale yi. jërëjëf saa yu ngeen gisee. biñ doon biñ doon naa ñii nii di ñëw ils ont mobilisé plus d'un yoo xamante ne nii lundi dinañ ko jébbal autorité locale yi. Baol info point net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor. ay journalistes yu xarañ te mën seen liggéey bawal info point net le portail du Baol sur le web. bawal info point net mën ngeen a abonné sunu chaîne YouTube bawal info.